initiative bi lu ko waral mooy dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 waaw dañu soxla bépp couche boo xamante ne nii yaa ngi ci biir population yi nga jàppa ci xeex bi looloo waraloon tey ji ñu ne euh, pour dàq dàq Covid-19 bi euh, mënuñu yem rek ci méthode biomédicale yi waaye couche communautaire yi dañ ci am liggéey bu am solo te ASC yi dañ ci bokk te depuis le début ñu ngi gis ni autorités yi autorités sanitaires yeeg ñëpp ñu ngi interpeller ASC ci lutte contre Covid 19 bi looloo depuis le début ñun ñi ngi ci tànk yoy nonu di def ay sensibilisation ak tamit bépp produit bo xamanteni ni dañ koy soxla pour euh, mesure barrière yi ñu def suñu kéemtalaay carton ut ko tas ko ci suñu bir ASC lolo waralon tay ji ñu dajaloo pour euh, distribuer ay masques dinañ tamit. jël ay affiches yoo xamante ne nii dañ koy taf ci biir quartier bi. ñun tey dañuy génn pour distribuer distribution bi nag tey ni muy demee ñun am nañ ay leaders yoo xam ne ñu ngi fi ci ASC bi am na am nañ am nañ ay lutteurs am nañ ay waykat ñoo xam ne ñu ngi fi ay artistes yoo xam ne ñu ngi fi tey ji ñoom nañ woo. pour ñoom ñu jàppale ñu si ñi nga xam ne nan la ñuy ñoom woo nañ leen fi ñu toll nii pare nañ bon ñoom ñun la xaar fi ñu toll nii dañuy démarrer incha allah ci distribution bi ñoo xam ne mooy Covid 19 bi ñu ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi quoi. parce que tey waa ASC Damel dañu ànd ak tey collaboration ak tailleur yi nga xam ne ñu ngi si biir ASC bi ñu àndandoo dafa lii di xam ne ay masque la pour xeex Covid 19 bi si kaw loolu tey waa ASC Damel ñëpp ñu ngi leen di woo di leen sensibiliser di leen wax ne feebar bi dafa doy waar tey mën nañu wax tey guerre guerre moo am guerre mondiale moo am ñun waa ASC Damel dañuy ànd ak ministère de la santé ànd ak waa quartier bi xeex lii di feebar bi si kaw loolu ñu ngi woo ñëpp ñu ànd respecté mesures yi nga xam ne ñu ngi koy wax di sol ay masque di raxas seen loxo yi lépp li nga xam ne daal feebar bi da koy bañ ñu ngi woote ñëpp encore di woo waa Médina di woo waa Dakar waa Sénégal ñu ngi woo ñëpp ñu ànd xeex feebar bi ndax mu jugee suñu réew. ASC Damels dafa am chance mu am ay mag am ay jeunes yu koy diriger yoo xam ne aussi c'est des jeunes qui sont consciencieux. yoo xam qui se sont toujours battus qui se sont été donc qui se sont toujours engagés sur des actions sociales les lu nga xam donc day am ci biir réew mi am ci dëkk bi ASC Damels daf di contribuer loolu du tey loolu lu yàgg la ASC Damels a toujours été donc une équipe donc qui boo xam ne engagé wu sur des actions donc sociales bon la ko seetloo même bi Covid bi commencé man j'ai pris l'initiative ak ñi nga aussi ñoo nekk sax ci ASC def ay barigo ak yooyu pour que nit ñi mën ñëw di di ci raxasu donc ñu nekk ñu conscientiel donc le rôle aujourd'hui d'une association dañ koy fàttali toujours du compétition rek du culturel rek aussi mais les associations donc doivent s'engager en fait donc sur le rôle social donc ça c'est important président Amadou Kane sax dem mi may woo di ma féliciter bi mu déggee action yi nga xam ne moom la ASC bi donc di di dérouler lii tey jii lii nga xam ne moo am fii tey jii si dëkk bi muy maladie boo xam ne kenn maîtriser mën dal ku ne état bi aussi ñëw déclaré na donc le port du masque est obligatoire daanaka sax peut-être que y a des gens qui am masque mais ils ne sont pas conscients mais aujourd'hui, jii ASC bi fait muy def nii ci biir quartier bi day tax nit ñi gën conscient donc di masque parce que masque aujourd'hui, il ku nekk am nga njëg mais il faut que les gens donc soient conscients que maladie bi maladie bu doy waar la mën na dal ku ne te ASC bi nous, ñun ASC ne mënul def faire dul parce que nous lii la ñu et j'espère que aussi les autres ASC vont prendre l'exemple

donc dañ koy euh, magnifier Ta xam ne ñun relève bi assuré ngeen ko parce que tey jii xëy na ñun on est un peu en retrait mais yéen ñi nga xam ne yéen ñu gën a ndaw ngeen jël initiative bi ñun dañuy koy magnifier ba top topp seen et puis euh, comme ni mu ko waxee di wo képp kuy président ASC mu def pareil par rapport ak sa sa équipe. ñun damess lañu dëkk damess lañu xam te damess lañu mës am. moo tax ñun yàgg nañ xam Dames ci social kon lii buñ ko defee duñ ne gulet moo ci remercier waa Dames yëpp macha allah ñëpp kontaan nañ ci ñëpp ndax lii mooy wane ni lii dooleel sa gox la. lii am na solo nit boo nekkee ci dëkk bu président liggéey da nga koy jàppale président nag ñu ma gën a fonk mooy ñi koy ñi koy nekkal ci biti lii nag am na solo trop quoi ñu kontaan nañ si initiative yi ak li Medina jóge aussi taxaw ci feebar bi pour ñu maytu ko pour jàppale si jàppale ñi ñu dëkkal aussi. ki nga xam ne ñenn nañu mënuñu ko woon am ñu ñëw wuti jikko ñëw jox leen ko jërëjëf ci initiative jërëjëf ci xel bu rafet bi merci